ci gën a jàngat bi ma déggee tey ñu ne placé nañ ko sous mandat de dépôt mooy dañuy sentir ne vent au changement bi commencé naa souffler mhm. vent au changement commencé naa souffler parce que tey bu ñu leen seen bor Bah Diakhaté dina am trois retours de parquet wala quatre retours de parquet wala cinq retours de parquet bu amee cinq retours de parquet ba pare mhm. ñu doo ko présenter procureur bu ñu ko présenter procureur mu dóor ko mandat de dépôt ñu yóbbu ñoom noonu lañ daan doxalee jàpp nañ ci ñu bëri ñoo xamante ne flagrant délit nga leen waru yóbbu parce que yaa ngi ko jàpp ni loxo ci poos mi ngi wax yaa ngi yaa ngi jot li mu wax mhm. donc boo ko instruire jëmale ko fan mais ñoom façon boobu lañ doon def pour mën a téye nit ñi ci kaso bi mhm. donc ñii au moins respecté nañ procédure parce que am na ci loo xamante ne soxlawul ngay wër pour xam ko mhm. li mu def def nañ ko jàpp nañ ko te et puis lañ koy àtte donc loolu pour man wane na ne fi ñu toll nii léegi amatul euh, li suñu confrère boobu doon wax euh, Aliou Ndiaye peine de contrefaçon peine de contrefaçon maanaam tappale pen maanaam peine la ko tuddee sax après parce que dañ lay jàpp nga war a tëdd ñetti weer wala am sursis ñu jël la fabriquer seen peine bi imaginaire boo xamante ne fi ñu koy teg bu njëkk peine bi fi mu njëkk commencé mooy retour de parquet fa la ñuy njëkk commencé mbugal ngay fanaan comme euh, central delluwaat fanaan central delluwaat fanaan central ba ñetti fan ñu ne la ëpp léegi dangay dem prison boo demee prison ñu ne dama toog xaar yóbbu nañ si ubbi nañ instruction fàtte nañ la fa. Mm-hmm. kon tey ji au moins peine de contrefaçon boobu ñu doon wax tëb na kenn dootu ko amati fa yi di ko wax kuñ jàppati ngay saaga wala affaire dañuy flagrant délit àttale li nga méngool nga tëdd ko parce que loolu mooy li am mm-hmm. bul ne du caaga ne da nga bañ Bah Diakhaté wala ànd ak moom ba mu saaga nga ne tey ji nañ nañ ko wala bu duggee prison bu mu génn su boobaa buñ la tooñee yaa ngi tooñ parce que dëkku yoon lañu nekk lépp looy def da nga koy teg si te ba léegi dañuy constater ne kon li ñuy def teg nañ ko si yoon maanaam bu ñu ko jàppee ci mbir euh, droit commun délit de droit commun infraction la jàpp nañ ko ci yóbbu nañ ko ci yoon léegi nag juge bi mooy xool juge bi dara tënk ko moom mooy xool ak yi ñu ko indi su koy jox sursis mu jox ko sursis su koy tëj ñetti weer mu tëj ko ñetti weer su koy tëj juróom-benn weer mu tëj ko juróom weer su koy bàyyi mu mu bàyyi ko mu ñibbi loolu ci loxoy juge bi la nekk mm-hmm. loolu dafay am na loo xam ne mu ngi commencé di dellu si waat maanaam justice boo xam ne da ngay sentir ne kat wax dëgg yàlla amul benn président bu nekk ci ginnaaw xam nga bu doon ñenn la esprit revanchard bi day dugg. Mhm. Bah Diakhaté amul ku mu saagawul. amul ku mu saagawul du président Bassirou Diomaye Faye du Ousmane Sonko. amul ku mu bàyyiwul ci opposition bi. Mhm. ñëpp ñëpp journaliste yeeg Cheikh Omar Diagne amul ku mu bàyyi. c'est un boo xamante ne nu mu koy waxatee comme un boo xam dafa dof quoi. day day day toog di di di tirer rek mais yàgg na def li ni mel. mais yàgg na ko def il mm-hmm. mm-hmm. mais ku ni mel tey bu doon keneen moo ko jàpp bu doon nguur bu revanchard moo ko jàpp non saa da ko béy téye di xaar yeneen plainte di ñëw. ngay dolli saa boo xëyee comme ni ñu doon def ñële. jàpp nga dóor ay retour mm-hmm. jàpp nañ Bassirou Diomaye ñu jékki-jékki xam ne Diomaye léegi ñu ne ko léegi dañoo sa dañoo sa dañoo def jonction des dossiers. Mm-hmm. sa dossier ak bu Sonko benn lañ léegi. benn la li ñu di toppee. Mm-hmm. pour nga gën di wéy ci kaso bi. xeetu tappale yooyu ñu doon gis là au moins gisuñu si tappale yooyu parce que liñ ko tàpp jàppee xam nañ ne flagrant délit lu fës la mm. yóbbu nañ ko ci yoon bu lëndee lu juge bu wax après ñëpp ànd si bi mm-hmm. ñibbi këram mu ñibbi këram bi dellu rëbës mu dellu rëbës mm-hmm. ensuite la vie continue je pense que loolu mooy jàngat bi ci ëpp solo bi ñu ci war a mën a def tey mm-hmm. eh, te mbir moomu sax dina tax artu ña nga xamante ne ñoo bëgg wala ñooy waaj def li li mel ñu bën ko arrêté parce que comme ni mu ko amet taxula waxee léegi politique du saagante waaye du du du ŋàññante mais débat di la sax ñoom ñi nekkoon ci nguur gi xam ne fi nekk ñoo leen gën dañ doon defante dañ doon jël justice di ci fayanto mhm. ñii bu ñu doon fayanto baa ku doon fayanto moom tey jii fi ñu nii nii mhm. bu ko fa planté yi ko plainte li ñu ko planté boo ko dajalee ba yen ko ko

moo gën a sérieux moo gën a sérieux bi te mhm. xam naa sax bu moytul boobu mooy bi nga xam sax moo ko a gën a sonal mhm. parce que boobu li ci wax yëpp mhm. euh, buñ ko bu ci mën na ko coûter très cher coûté mhm. xam naa koo xamante ne mu pareegul ak yoon. Mhm, mais am mu génnee xaw ma day wax. mais dafa am benn mbir bu ñu nemmeeku jamono ji ñi nga xamante ne ñoo di waa APR dafa mel ni lañ doon xaar benn porox ndollu ngir mën a fësalaat seen bopp parce que gis nañ ne daanaka ñu bëri ci ñoom jàpp ne daal mbir mi euh, manip intimidation la moo tax ñu jàpp ki nga xamante ne moo di euh, baajaxate donc ñuy demande ñu bàyyi ko ci nu mu gën a gaawee yow naka nga gisee loolu. pour man waa APR ils font dans la diversion. Mhm. c'est simple que ça xam nga actuellement le régime mhm. en place mi ngi posé ay actes yu fort mhm. yoo xamante ne mi ni ngi warlu ñu ngi def lu ñu warlu askan bi te pour def yenn acte yenn yenn yenn yi foog nga posé acte yu fort donc loolu ñu ngi koy wane askan bi di gis seen bopp maintenant léegi pour jéem nëbb loolu askan bi foog ñu def dans diversion personnellement pour man ce n'est même pas fortuit le fait que ay affaire ba jaxatee ay ñu di daf seen gémmiñ il détourne l'attention des populations par rapport ak actes yu pour mhm. gouvernement bu bees bi digat bu ko bu defee léegi nag bu leen commence bu justice bi autosaisir comme bii ils vont verser dans la dans la victimisation mhm. la c'est une façon d'anticiper par rapport au procès du c'est-à-dire les les ay Cour des comptes IG OFNAC yu war a génn nga xamante am na ñu bëri nar la leen si épinglé dañuy anticiper dans la victimisation pour man loolu provocation la voilà exactement mm-hmm. seen yoon nekku ci mbiri Bah Diakhaté exactement mais dañuy anticiper voilà pour ëllëg ñoom bu ñu leen jàppee ñu ne voilà ñu mën a bénéficier c'est un acharnement a ko maintenant léegi ñu ngi génn ay dossier li ñu jéem a parce que. loolu au début ba Macky Sall doon njëkk yëg si noonu la defoon ak waa PDS. mu defoon cour euh, CREI cour de répression illicite ñëw si diviser si kenn finalement ça si opinion bi était favorable à cela parce que c' est une demande sociale mais finalement Karim Wade est devenu une victime benn instant léegi. l'opinion qui était favorable à ce que nous poursuivrons ko mais l'opinion léegi commencé léegi am benn vent benn sympathie benn compassion si kaw actuellement ñoom loolu la ñuy a jouer ils veulent jouer si loolu ils veulent en profiter si kaw ba ba jaxate bi def loolu moo tax ñu dem foofu show foofu yenn responsable fa dam il n'a rien fait def un peu de show provoqué leen bu leen dóoree lakki ba ñu daw dugg daw ñoonu mais tout ça pour wane ni rek attirer compassion wu public bi bu ko defee ñi ñu leen ëllëg nag buñ si commencé ñeen ñun si poursuivre si carte si côté seen gestion si rapport yi mm-hmm. danaan voilà c'est comme ça gars yi dañu commencé poursuivre mais pour man c' est ce piège là lu ñu jéem a tendre gars et puis deuxièmement les véritables débats yu ñu war a mën a poser pour les réformes yu ñu war a def ak changement yu ñu war a def mhm. on les pose pas pour pourtant nguur gi bees gi actuellement seen nguur gi mu def mhm. mais comme ñoom ils n'ont pas d' argument à faire valoir pour mën mhm. ko opposer à ce nouveau mais pour man sax régime bi war leen si toog war leen si sax devrait sax nous aider sax à ce que jox benn moindre importance c' est benn fumée la nii rek affaire u Bah Diakhaté pour jéem a def un peu de diversion et même pour exister politiquement aussi ça il faut le dire parce que tamit euh, ñëpp xam nañu ah mais bien sûr parce que ils <laughs> n'ont rien à mettre sur la table pour jéem ko voilà pour wane pour wane ñoom ñu c'est une opposition pour mën a mhm. euh, faire face à ce nouveau régime loolu amuñu ko ils n'ont mhm. pas cette tataf là boobu donc il faut que ñu jéem a aussi loolu mhm. mais nag euh, bon

gàtt deux mois wala même pas deux mois mu jël mbir yooyu yëpp mettre ko en place. waaw mais c'est une bonne chose parce que tamit comme lu ñu wax rek dama ni ñoom ils ont prôné pour une il faut des actes forts ils sont en train mettre des poser des jalons pour wane ni ñoom fu ñu bëgg a dem xam nañ ko. Mhm. xam nga euh, yow benn mbir lu ngay wax je pense de euh, de la vie chère. Mhm. fekk côté boobu ngay def allusion. Mhm. Euh, la vie chère comme lu ma tàmmoon wax rek am na ku ma ko doon on n'a pas le contrôle sur les coûts. loolu il faut le dire. parce que lu ngay jéegaane yow tu dépends de l'extérieur. il y a des effectivement yoo xam ne tu dépends gis nga ñun bu ñu bëggee résoudre le problème suñu problème vie chère coût vie chère il faut que lu ñuy consommer ñun ñu koy mën a produire. tant que defuñu ko on dépendra de l'extérieur te tant ñu ngi dépendre de l'extérieur on dépendra des facteurs exogènes donc boobaa ñun dafa mel ni sax. souveraineté sax si bopp parce que boo nee kat kat boo bëggee ab aspirer à la souveraineté foog nga moom yow sa bopp déjà. Mhm. mais nga moom sa koom-koom moom yow lu ngay lekk maanaam lépp yow nga am si total un total contrôle. Mhm. donc ça veut dire que donc léegi euh, les actes bu nu bëggee euh, gérer loolu il faut que nous promouvoir ce ko appelle l'agriculture ñu nuy bay ñu nuy lekk ñu koy bay te pour que ñu def ko il faut que ce qu'on appelle nous am accès à la terre. bay paysan yi baykat yi ci boppam ñoom ñu mën a am accès si suuf si deuxièmement les intrants les gouvernement en place daf nay effort wàññi na ko mais pour que cela devienne effectif mu feeñ ci panier ménage il faut que tamit le marché local les produits yu ñuy bay ñu mën ko inondé boobaa gars yi dinañ ko gën a mën a yëg bu fekkee ce que l'on produit localement ne peut pas couvrir en fait la demande nationale et qu'on est obligé d'importer malgré que nguur gi wàññi na les intrants ba tey du am du feeñ carrément ci PNMR je comprendre c'est-à-dire il faut que ñu def benn programme pour am ce qu'on appelle une autosuffisance alimentaire ba am tamit sécurité alimentaire mm-hmm. autosuffisance alimentaire ça suffit di nga am produire nga assez pour mën a couvrir le marché mais sécurité alimentaire ça te permettra que yu ngay produire nga mën ko stocker y a des problèmes de stockage yooyu yëpp foog ñu gérer ko et même problème de transformation loolu sax dafay injecté waat si marché bi foofu nag la nguur gi foofu la ñuy mën a amee prétendre a contrôler xam ndax mën nañ wàññi ou pas suñu suñu coût de la vie lenn rek la nguur gi mën a def wàññi lay taxe c'est-à-dire mu dindi taxe yi ba pare dindi droit de douane yi loolu peut dina am impact. si si si si si njëg yi mais sinon man je ne vois pas solution lu nguur gi mën a def à part bu fekkee ñun tant que looy produit que nous consommons ñun on les produit pas de façon locale ni ni ki fii nii on peut pas impacter wala on pas contrôler les prix à chaque fois on va dépendre de l'extérieur à moins qu'on renonce si ay taxes et sur des